Donc, chers frères, euh, chères sœurs, euh, nous rendons grâce à Allah SWT qui nous a facilité euh, ce voyage ici dans ce village de Doudam. Donc, comme vous le voyez, nous sommes ici pour procéder au démarrage des travaux du puits. Donc, nous demandons à la Ta'ala qu'il facilite ce projet et de sorte que les villageois puissent atteindre l'eau le plus rapidement possible. Donc comme vous le voyez, donc, euh, les travaux ont démarré, alhamdulillah, ça commence bien. Donc là, les travaux continuent comme vous pouvez le voir ici sur ces euh, images. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa qu'il euh, mette sa baraka dans ce projet, de sorte que ces villageois puissent donc accéder à l'eau le plus rapidement possible. alaikum wa ta'ala wa Wa ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. li ngeen def nii yal na leen yàlla defal fay leen lu ko ëpp yal na ko yàlla fulandi ah fulandi boo xam ne danañu xam commencement bi mais kenn doo xam fu mu fu mu yem ah moo ànd ak xiiwal yoo xam ne kenn doo xam fu mu yem ki jóge France ñëw fii tam ah ñu ngi koy sant bu baax station bi nekk foofu itam ñu ngi leen di sante ah di leen gën a ñaanal xiwal bu gën a yokku weer bi gën a yokku lépp lu ngeen dab itam yàlla gën koo indi rek di leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla fay yàlla moom am pay moo yal na leen yàlla fay lii yéen a ko euh, firndeel na boppam ndax ñëw ngeen fekk ñu ñuy gas gis ngeen lu ñu doon naane fu ñu ko doon jële xam nga lii lu tiis la woon kon bu ngeen ñëwee euh, jéem a fexe di di ñu dimbale pour ñu génn ci lu ñu nekkoon wax dëgg yàlla euh, loolu yàlla rek a leen mën a fay ñun mënuñu leen fay mënuñu leen sax gërëm ñu seen biir suñu biir euh, tollu ci yeen wax dëgg mënuñu ko wax mënuñu ko ndaxte lii ngeen gis nii wóorul nga nga nga nga nga kii ko euh, di ci ta euh, wut ndox te xaaji guddi lañ fi doon ñëw kon xam nga ne soxla woon nañu lii alhamdulilahi rabil alamin bi ngeen ñëwee indi lii laajoo ñu dara seetu leen ci ñun dara ñu ngi doog a euh, gisante tey yal na leen yàlla fay man de sama euh, sama xol daa fees ci yéen daa fees ci yéen ba lu ma bëgg a wax mënuma ko sax wax. gis nga yéen yàlla moo leen mën a fay gis nga teen bu ñu mujjoo nag yi mu boo taal ne moo topp danga <laughs> ma trois kilomètres foofu la ñu yendoo di di di kii ñëw ndax beneen tool bi arrangé leen kon nag bu ngeen defee lii wax dëgg fa yàlla yàlla rek moo leen mën a fay. jigéen ñi teew fi yëpp ñoo ngi leen di nuyu seeni seen i seen sant di leen gërëm di leen jaajëfal di leen masawoo yoon bi ñun jigéen ñi gis nga ni ñu mel taluñu dara ndax ndox lu ñu sonal mooy ndox ndax jigéen bu amul ndox amul dara. ñun fu ñu toll ñoo ngi wut ndox mu neex ndax ndox mu naqari baaxul day daw biiru xale yi day feebar mag ñi fu ñu toll ñoo ngi woon ndox mu neex ñun amuñu seen pay yàlla rek lañ leen bàyyi yàlla na leen yàlla fay jigéen ñëpp a sonn ndax ndox fu tee nekk ci àll bi dox nañ fa yenu ñii seen dënn yaa ngi metti ñii seen faar yaa ngi metti ndax ndox waaye jigéen ñi am nañ ci yéen ngërëm am nañ ci yéen tant am nañ ci yéen mbégte boo xamante ne xamuñu sax nuñ ko mën a waxee jaa jàngeen jëf mënuñ leen a fay yal na leen buur yàlla fay fàtte wuñu ka leen yónni kaleen leen yëbal pour mu ñëw seet si suñu coono faj suñu naqar dimbale ñu ci coono kooku ñoo ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal. doomam yi lu ñu bugg te mu nekk lu leen jig yal na ko yàlla yombal moom ci boppam lu mu bugg ci njabootam bi te nekk loo xam te ne daf koy jëriñ jëriñu ñi ci yal na ko yàlla yombal. Comme vous pouvez le constater donc, euh, à travers ces images, donc c'est des villageois qui euh, donc avaient euh, d'énormes difficultés pour avoir accès à l'eau. Donc comme vous les avez entendus tout à l'heure, le chef de village ainsi que les membres, donc ils nous ont expliqué toutes les difficultés qu'ils avaient pour pouvoir trouver l'eau. Donc là vous pouvez voir les images par elles mêmes Donc le puits qu'ils avaient. Ça c'est l'eau qu'ils utilisent tous les jours. Donc euh, moi qui euh, vis en France, donc euh, qui est là, donc ça se passe de commentaires. Donc donc c'est ça qui prouve que franchement nous sommes des privilégiés. Donc voilà. donc nous demandons à Allah subhanahu wa qu'il récompense la famille qui a financé ce puits. Donc qui pouvait faire comme tout le monde, aller en vacances ou faire autre chose. Mais ils ont préféré venir en aide donc, à ces villageois. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur accorde euh, la baraka dans leurs biens, qu'il leur donne la santé et qu'il accepte euh, donc euh, cette sadaqa d'Aria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.